chers téléspectateurs mbokk yi ak xarit yi euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen siyaare di am mbégte comme d'habitude jàkkaarloog yéen seen émission baax bi nga xamante ni moom moo di Active Star Active Star nag tey dañu dalal euh, benn ndaanaan dañu dalal benn percussionniste dañu dalal koo xamante ni dafa am cër ci li nga xamante ni moom mooy euh, musique sénégalaise euh, rawatina ci li nga xamante ni ci lay yëngu muy wàllum sabar muy ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Anta Ndiaye Cheikh Anta Ndiaye boo ko déggee sa xel dafay dem ci groupe daal mu nekk fa di fa def liggéey bu am solo Cheikh ñu ngi lay nii am mbégte loolu ci dalal bi ñu dalal mm-hmm. fii ci kër gi xat na loolu waaye accepté nga invitation ñu bàyyi la nga téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi toog di suivre la Dakar waa 221. waaw maa lay fay di la siyaar di kontaan nag wax dëgg yàlla ci seet bi nga ma seet si suma bërëbu liggéeyukaay. nga xamante ni euh, Cheikh Anta moom ku ko xam-xam ko studio. Mm-hmm. xam nga donc maa ngi ciy mm-hmm. di nuyu àdduna di nuyu soppe papa rakk na jaay maam doom xarit. Mm-hmm. jigéen lépp rek maa leen di siyaar di wax ni euh, Cheikh Anta yi Cheikh Anta Borom Gaawaan Cheikh Anta Baye Fall bi tey <laughs> moom la ñu dalal euh, mais Cheikh euh, balaa ñuy dugg ci waxtaan bi bëgg naa euh, gi ne ci yow ak dal gi ne ci yow ak yaru ne ci yow lan la. waaw xam nga ndeysaan yàlla dafay dafay mooñ doomu aadama ci benn anam ndax man avant maa tëgg sabar ndongo daara laa woon. Mhm. waaw jaar daara. waaw mhm. daara laa woon donc mosuma dugg école mhm. benn. xaw ma xëy na est ce que nekkul looloo ma xaw a dëxëñ waaw parce que ndonga daara laa woon wax dëgg yàlla mm-hmm. jaar daara ja bi mu jógee daara ja ñëw kër na fekk ñëpp di tëgg mm-hmm. tëggu moo toog naa benn diir bu yàgg nag mm-hmm. bon xëy na affaire yooyu moo tax rek am xaw <laughs> lu waral bi nga <laughs> jógee daara fekk kër ñëpp nekk di yëngu ci li nga xamante ni moom mooy wàllum sabar nga ñëw tëggoo lu waraloon lool waaw loolu nag yéem yéem na ko ne parce que euh, xam nga judd ci kër gu toll ni këru ngéwal gu mel noonu. Mm-hmm. xam nga Alaaji Idrissa Ndiaye di sa baay ajaratu Ami Diagne di sa yaay. Mm-hmm. ah nga bokk ak Souleymane Ndiaye ndey ak baay Papa Ndiaye mm-hmm. foofu moom njàngaani du fa am. lépp nga ca kër ga. xam nga donc mais euh, yàlla defee ma ñëw jóge daara man ñëpp di tëgg man damaa topp rek. bon li naan li ci jàmm. Euh, bu ko tracé ba pare force dañ ciy jaar. Mhm. donc benn benn jour daal laa gi rek gars yi di tëggi rek ba jékki sama benn grand ndeysaan Assane ba yàlla ko yàlla yërëm. Mhm. di tëggal suma magi ci mhm. buntu kër euh, ma rek virus bi dugg ma <laughs> noonu. jaka demee <laughs> ma jóg rek tëgg. <laughs> tëgg juróom loo njëkk cool laa jël di teg ñoom ñëpp yéen. ak cool ni mu difficile dégg naa moo gën a difficile ci sabar. wala mu tudd xam nga d'habitude gars yi dañuy jàngee tëgg si tugu nii moom mooy nangam nangam. Mm. mais man dama ñëw rek ñëw fekk cool bi teg rek ma ñëw jël rek commencé tulli. Mm. ñoom ñëpp tourné di xool nag affaire bi bett leen. parce que mm-hmm. c'est pas évident. ci mm-hmm. ku mus a tëgg sabar xëy suba rek noonu. Mm-hmm. ñëw jël cool risque la quoi. mais mais mais Cheikh euh, tey bu ñuy waxtaan ci euh, Cheikh Anta en personne. est-ce que doo toog jekki saa yi nga toog xalaataat ne man est que amul lu ma xaw a bett ci man. parce que hmm. fii nga jóge ak fi nga hmm. yegg si tey ak jaar-jaar bi nga xamante ni jot nga ci jaar mu doon lu tiis doon doon lu metti nga doon nga nga nga muñ ko euh, tegoo ko nag doon ne man Baye Fall laa juddit laa jaar naa daara suñu borom lu ma lu ma teg lu mu metti metti man dama koy hmm. tegoo est que doo toog par des di muy xaw a ngay ngay ngay xalaat benn xalaat boo xamante ni ak fi nga jaar. waaw mooy mënul ñàkk xam nga doomu aadama moom fu mu wéete xelam doxantu ci loolu ci doomu aadama rek la mhm. te yàlla noppi na ndax xam nga tey wàllu wi nekk di ko def mu musique di mhm. aar mhm. Euh, lu suñu borom tracé la ci suñu dund parce que nit nekk na géwal juddu ba màgg tëggul wayul feccul nit nekk na géwal juddu màgg doon bureaucrate doon leneen te tëggul feccul woyul mhm. kon donc suñu borom mooy tracé ci jàmm mhm. donc nag am na loo xam ne bu ko suñu borom trase ci yow da jàpp ni sa borom la ko jagleel mhm. muy sa métier d'accord mais soo ko waree def na doon yëre soo paree su muy wekk ba mu jotaat rek nga sol am na solo bu baax a baax baax tey ñu ngi dalal Cheikh Anta Ndiaye suñu émission Adji Sarr fas yéene waxtaan ak moom ci lu bëree bëri ci carrière am euh, ci jaar-jaaram rawatina événement bu rëy bi nga xamante ni mu ngi koy waajal mu nekk li nga xamante ni moom mooy nuit nekk li nga xamante ni moom mooy le 10 novembre foofu ci théâtre Daniel Sorano xam naa euh, dinañ ci euh, waxtaan ci kanama kanama kanama kanam mm-hmm. mais mais mais Cheikh musique ak ak tëgg tëgg tëgg sabar dafa dafa différent parce que yow ban année nga tàmbali li nga xamante ni moom mooy jouer musique carrément. bon xam nga tëgg sabar ak musique moom wuute na. Mhm. ndax man dama daan tëgg sabar tànn biir yendu sabar ngoon sa minute tërn laabaan yëpp dama ko tëgg. instant bu ñu ko teg la waatee ni ñu ko tëgg. si yaa ngi <laughs> baax mënuñ ñàkk loolu <laughs> la aussi. Mhm. xam nga mais euh, li tax ma gën a dugg ci musique moom pour dire vrai dama nekk ko ci kër gi di engagé programme yi manam ñu ko daan sant samay mag. ñom ñukoy tegg dem ba benn moment bo xamne ne santatul leen ko ñom dañ leen di romb ñew di ma ko sant. Mm-hmm. xam nga ma jekki jekki daan ne ah problème am na nag parce que man ni man dama leen daan jappalé mm-hmm. donc bu leen dee romb di ñew ci man kon suba est ce que duñ ma romb dem ci sama benen rak wala sama jarbat mm-hmm. ya ngi xalat ci wa donc ma jekki jour boobu laa jékki-jékki daan daal na woon il faut mu musique quoi. mu mhm. bëgg a def leneen lu bokkul ak tëgg sabar. Mhm. bon suma benn mag bu ñuy wax ma Cheikh. Mhm. maa ngi koy nuyu mu joué ci suma carrière la. ma Cheikh moo ma jël yóbbu ma ci Doudou Sow. Doudou Sow xam nga wala xam. Doudou Sow. moo ma jël yóbbu ci Doudou Sow boobu ñu ngi joué Sunrise ay donc xam nga. may dem di jouer salsa bu ma ñëwee toog grand bi di di ma kii may ñam ñaar morceau di wàcc yenn saay yi du ñëw ma dem assuré whatever mu virus ba yàlla dogal xam nga yoon bi jaaree fa nag eh. metti na nag début bi. parce que mhm. du yomb. Mhm. du yomb parce que man sama xarit yi ma daan àndal saa yi buñ ma musaan wax programme du ma dem. Mhm. su ma ne eh, maa <laughs> dem répété ji wala maa ngi dem xaw a jaaxal su ma ñibbisee mu day métti ci man. Mm-hmm. donc like ku ma ci ne waa jox ma dara boobu danaa ma non non damal musique fay la. Mm-hmm. parce que boobu musique nga gëm ñoom tëgg sabar la ñu gëm. voilà mu wute loolu nag dëgg yàlla ma jaar ci fu fu fu sori. Mm-hmm. donte xale la. jar naa ci ci jaar jaarin boo xamante ni bi yàlla bu ko sama rak gis. you know waaw bu ko gis. parce que jaarin bi métti na quoi. Crèvecoeur euh, mm. euh, boo mm. xoolee li muy wax nga xam ni mm. euh, ci biir xolam la jógee mais mais mais je pense que ni musique bi tey moom moo la yóbbu woon bitim réew ba nga xaw a dund lañ fa jot a dund waaw musique moom yaakaar naa ni yóbbu na mu fépp parce que ma à part du sow jaar naa ci ay groupe yu bari attendre naa fi joué naa fi ak ay Ami Meng ma Penda Seck naa fi ak bref groupe yu bari it band mm-hmm. boobu ñu ngi boole Pape Diouf Aby Ndour waree fa nekk mm-hmm. benn groupe joololin band mu nekk naa fa diir j'ai ay a collègue waree fa joué naa ñëpp quoi presque Sénégal mm-hmm. xam nga par la suite may joué suma benn xarit la nag sama doomu ndey mm-hmm. Bouba Kiriko Kiriko moom anam fu mu nekk <laughs> mi mi ngi si jaamu suma <laughs> copain maa ngi koy nuyu de passage xam nga yàlla moom ñu ñu ñu ñu xamante di joué lu yàgg moom moo ma présenté sax DJ Awadi mm-hmm. donc ma dem Awadi war a def benn soirée ñu woo mu ne ko sama percussionniste bi laa laa la bëgg a proposé mm-hmm. donc ma dem joué soirée boobu sans répétition affaire bi neex c'est ça donc waaw yàlla yoon bi xam nga mm-hmm. ak Awadi nag moom dox naa dox dox dox dox dox lu bari bari bari xam nga ba xam nga carrière moom lii day neex lii day naqari mm-hmm. mais li neex santal li naqari mooy defar leneen li mm-hmm. ah souvent noonu lay demee mm-hmm. am na solo bu baax a baax a baax a baax a baax mais euh, ñu gis ni euh, euh, da nga percussionniste nga woon en même temps léegi da ci boole li nga xamante ni moom mooy kebatu bi taasu bi nga ci xaw a boole njàmbaas ko ci lu lu waral nga boole ñaar yi point boobu sax dinaa fa ñëw tuuti parce que senegal Sénégal dañuy jaawale taasu kebatu mm-hmm. ak wax mm-hmm. dañ ko jaawale yóbboo ci def man artiste la mm-hmm. te artiste dafa ëmb dafa ëmb lépp lii dama koy jàllale message la quoi souvent ngay gis taasu taasu jigéen moom moom taasu parce que boo daan boo daan bàyyi xel maire Abi Ngande Diop. Mm-hmm. ay Ndeye Diarra Gueye ñooñu ay maire jambal jambal waree ba dañ doon daan taasu daan dégg ñu naan laay laay la laa loolu ci ñoom la jekk ñoo mm-hmm. ñoo ko mm-hmm. am kebetu kebetu dafay gis ni daam seen da def papa Ndiaye Coppe da def waree ba mooy wax boobu nga xamante ni dafay dafay riim comme rab mm-hmm. am wax mm-hmm. waxtaan musique day daw nga naan gis nga xale bi man de bi ma ko defee nangam mais doguma la quoi mais su may mel <coughs> ni déglu say son a ngay mel ni kuy waxtaan voilà waxtaan ak taasu ak kebetu du benn parce mm-hmm. que souvent comme li ñuy woowee ambiance ñoom li ñuy woowee ambiance actuellement c'est-à-dire loolu ba tey sax <coughs> tuddul ambiance mm-hmm. loolu mi ngi tudd maanaam euh, comme sandoxo li mu daan def mm-hmm. luy jaay sa jaba xam nga ko takk takk c'est-à-dire loolu moo dikkaat rek mm-hmm, ambiance bi ambiance dafa ki def ki def whatever loolu yëpp ci biir la ne ay ay affaires yu différent la quoi ñu wutee donc kon nañ ko rafetal rek leer na parce que li nga wax ni euh, man baax na ci man baax na ci samay morom ma xam ci parce que jëlee naa ci euh, jàngat bu bëree bëri mais à part loolu bi nga xawee tarbiyu euh, mbapat ba mbapat mbapat gu metti mais après da nga dem jàng ji musique wala waaw musique jàng naa ko parce que fii ma jaar yëpp école la mhm. xam nga salsa moom boo ci jaaree rek déjà yaa ci école mhm. parce que salsa nekk na musique boo xamante ni bi ah gars yi may seetaan xam nañu ni c'est pas évident ñëw di ko jouer yombul mhm. xam nga donc boo defee variété daan jouer ay varieté di def jazz di def ay rock di def leneen ak leneen. Mhm. donc loolu école la. Mhm. jaar si DJ Awadi xam nga ni sabar ak rap moom xam nga doy waar. xam nga mhm. di foofu lu ne laa fa daan jouer. dama fa daan jouer rumba dama fa décalé dama fa doon bu dama daan def lépp. kon yooyu yëpp école la. yoo xamante ni ay expérience la yu ma suñu ma jaar. mu doon. Euh, loo xam ne ma dégg yàlla dimbali na ma tey. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. jàng la ko loolu jàng. mais mais mais fi nga jot a jaar yëpp nga gis say rakk euh, ñenn ñu ngi concentré wu ci musique bëgg jël ay ndaanaan yu bëri est ce que tey jotul tey euh, yow tamit nga xaw a xool noo organisé woo. Mm-hmm. xaw a yenn xale yi nga xamante ni bëgg nañ musique nga teel leen teg ci yoon. waaw si loolu nekk sax parce que man xam nga dama am benn group bu tudd Sabar Melo. Sabar Melo. Sabar Mélodie. Mélodie. waaw sabar melo donc groupe bi sabar melo la tudd. Mhm. ba bëri na bëri na bëri na bëri na art bëri na ay xale yu ci nekk nag ëpp na cinquante. Mhm. ñu dem te ñoom ñëpp ñenn ñi am na ñu ma teg ci groupe ñu ngi am na ñoo xamante ni ñu ngi jàng. Mhm. parce que lu continuer éternel amul. te pour exister il faut nga defar sa bopp. wax <laughs> <laughs> macha allah <laughs> daanaan la eh. mais mais mais mais ñu ñëw euh, ci digganteeg euh, sa diggante ak euh, Wally Ballago Seck mhm. seen jaar-jaar ak li leen yàlla boole tey ba nga xamante ni tey je pense que ni Cheikh dara la macha allah ci biir ram daal mhm. am na complicité boo xamante ni am nga ko ci ak ay musiciens yi nekk ci biir ba ci moom mhm. tey sa sa diggante ak la la Faramareen waaw moom lu yàlla namm la ci sama diggante ak moom parce que moom début carrière am yëpp ñoo ko ànd. Mm-hmm. depuis ba mu commencé ba léegi wax dëgg yàlla. Mm-hmm. maa ngi gunge mu ngi ànd di liggéey liggéey bu rafet. macha mm-hmm. allah parce que man bi may xam waali boobu singalam génnoon. bi may jël waali dafa fekk ma xamanteeg moom. benn moment mu jóg fi voyager mhm. bi mu ñëwee muy def album Volio mhm. mhm. Baba Amdi Diawara moom moom woo ci ne ma damay defaral doomu toon Seck benn morceau bu tudd Cégin dama bëggoon nga ñëw joué ko ma ne ko kan la mu ne ma waale ma ne ko non kooku sama waay la kon dafay def affaire mu ne waaw mu ñëw joué morceau boobu morceau boobu bu paree ma voyagé mu ñëwee moom en personne maa ngi koy nuyu. Hmm. ma ne Cheikh damaa bëgg nga gunge ma ñu ànd liggéey. Hmm. te dafa naan loolu confirmé na ko moom ci ay plateau. Hmm. ak nangam nangam tu vois. donc boobu ba léegi nag ñu ngi ànd. ma koy gunge ñuy liggéey. ba fi ne famille la. ñun famille la ñu kenn mënul dem bàyyi sa morom. surtout loolu daf ma damay xool yenn groupe yi macha allah mhm. mais yéen euh, affinité bi nekk ci seen biir ak ni ngeen mel ak ni leen yàlla boole man loolu secret boobu dafa xaw a jaar waaw famille la xam nga yàlla bu defaree mbër da koy booleeg ay mbër mhm. wallaahi yàlla bu mhm. sampee mbëram da koy booleeg ay mbër fi nga fekk nii ma toog di liggéey Papis Ndiaye moo ko moom mooy chef d'orchestre Ramadan te maa ngi fi ci mbërëmam tok mhm. kon donc yalla bu defaree mbërëm. da koy bolé kay mbër. lolu <laughs> lolu mom ken ken ken ken ken mënu ci dara euh, en tout cas ñu ngi koy nuyu moom tamit seen and bi yalla saxal ko. Mm. mais mais pas des ngeen tok toog dégg euh, seen jitt ñu waxal yeen ni lan lay def ci yeen wa ben côté dina la metti parce que amna ci wax yi négatif yo xamanteni ni ki koy wax moom bu fréquenté won seen jitt bu ko mhm. wax. Mhm. àdduna bi mu sosoo ba léegi képp ku nekk ci kanam ñu naan maga nee rek yaa ngi déggul la naqari mm-hmm. ak ku mun a doon mm-hmm. nekk ci réew moo xam ne senegal bëgguñu ku ñu naan mooy moo fi ne mm-hmm. bëgguñu ku ñu naan mooy paye paye bu ñu gis la wutal moroom ñoom leneen luñ la defal loolu yàgg na ci àdduna day dal ko ne ci réew mi fii war a nekk réew mu naqaree waxee nag. wallaay réew moo xamante ni da ngay wax mbir. ñu jël ko interpréter ko neneen noo xam ne duñ ko tax tala déglu. duñu déglu ba xam li ngay wax ne mais ñoom dañuy gis rek naa ah, bal ba tàkk na. te te te wax dëgg yàlla Sénégal euh, bokk na ci pays yi nga xamante ni dañ leen naw. ñun lu baax la lu xamee wax lu rafet mm-hmm. jëf ju rafet mm-hmm. mais léegi malheureusement image bi ñu ngi ciy sotti suuf mm-hmm. sotti suuf ci wax ju ñaaw léegi da ngay xool tiktok bi doo romb benn vidéo ñaar te déggoo saaga te ci ñun suñu ci kàllaama bi ñuy làkk wolof c'est compliqué ah am na solo bu baax a baax a baax mais <coughs> Cheikh ñu gis ni souvent da ngay joué yenn rythme yoo xamante ni dafay xaw a impressionné sénégalais yu bëri parce que man mm. gis naa sa benn vidéo ngay joué ci table loo xamante ni man maa yëm jour boobu man vidéo bi toog naa trois jours di xoolaat bi ni kii <laughs> <laughs> mbir nit la koo xamante ni yàlla moo ko créer benn <laughs> don sànni ko sànnil ko sénégalais yi sénégalais yi bi ñu yàlla jox wala la rythme yooyu man man daf maa xaw a yéem table yi ni ngay mën a tiimee table di ci def ay rythme yoo xamante ni nii dafay xaw a yéem gars yi xam nga ñun africain yi ñun africa sax laa du wax sénégalais ñun africain yàlla def ñu dimbali loolu ñun suñu yaram yëpp rythme la mm-hmm. te yow mi toog fii boo déggoon benn benn benn jamaïcain di joué. Mhm. bu commencé rek léegi nga jàpp temps yow. Mhm. parce que africain bi. Mhm. xam bu français bi joué ay waree ba da nga koy comprendre. parce que africain nga parce que ñun dañu bëri rythme. parce que lii rek rythme la bokk. da ngay gis ni gars yi di di ko def kon donc rythme ci ñun la nekk quoi. dañ ko war a sant suñu borom. xam nga man pour man est bon percussionniste war na mën a joué ci yaramam. war na mun noo gis war na ci mën a jouer quoi parce que liy jouer du loxo yi mais mi la. xel mi mooy jouer donc bu xel mi joxee ni lii war am son rek donc war na am son. mais li non ci lii ni nga ci mën a jouer a duma la ko laaj. non <laughs> xam nga bant la cest moom ni ko gisee nii yaa man man pour man ni mu tegoo nii war na war na am sonorité yu différent xam nga. Hmm. donc loolu nag xel moo koy def. Hmm. xel moo koy mhm. gis ko nii rek am yëg-yëgu géej gi nga géej nga amul quoi xam ne lii la laaj nga def ko. non jéewaatal li nga jiyee léegi saa yi. non li nga jiyee léegi jéewaat yi da ngay fo rek. xam nga. sama la du métti def dara. non <laughs> da nga koy def nii rek naturellement. xam nga eh. parce que rythme moom ci ñun la bokk. Cheikh ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, Nuit des percussionnistes. Mhm. pourquoi concept boobu noonu. waaw concept bi nag li ko tax jóg moom mooy bëgg ñu xam ne percussion dafa am valeur. Mhm. dafa am valeur quoi ci ci réew mi fii. Mhm. surtout art. Mhm. parce que ñun senegal li ñu moom bariwul. ginnaaw tama jëmbe xalam peut-être kora amuñu leneen. wala bongo wala leket. tu vois donc te yooyu yëpp rythme la percussion la. Hmm. te gars yi dañuy jël musique bi dem di jaay di jéem a fexe xool na la ñuy jaayee clavier batterie basse nangam nangam ok yooyu yëpp c'est bien beau mais dañ ko copie moomuñu ko. Hmm. ñu percussion la ñu am. Hmm. donc balaa nga li tax sax musique bi doon mbalax lan moo tax mbalax ci sabar lañ ko xabar kon donc loolu dafa lay dafa wan ni yow réew mi fii percussion rek la ñu am. ci bëri na ci ñoo xamante ni comprendre nañ ko mais am na ci ñoo xam ne dese nañ ko comprendre. Mm-hmm. comprendre nga tey jii suñu papa du jaaroos yàlla na ko yàlla yërëm. yóbbu na sabar fu si ci àdduna. Mm-hmm. na ko ba joué ko fenn euh, euh, indépendance France. Mm-hmm. xam nga yóbbu ko Japon yóbbu ko fu ne kon donc loolu warul naax saay. xam te mbir boo ko fekkee boo yokkul rek yaa wàññi mm-hmm. moo tax mu jël guddi gi pour di ci feddali samay nawle ni mm-hmm. leen que ni li ñu am dafa rëy mm-hmm. ñëw leen ñu bokk ko ñu partagé ko ensemble wane loo xamante ni bii suba euh, ku ko gis ci biti dina xam ne ñii kat fonk nañ seen cosaan parce que euh, ci wàllu percussion bi ñuy def nii dañ ci dañ ci boole démb ak tey mais démb ak tey soo koy boole tey day ëpp démb. Mm-hmm. ndax li tax ba tax mooy démb ñi ko mën a expliquer bariwul. Mm-hmm. est-ce comprendre nga donc li àdduna bi dafa changé lépp dafa moderniser wu xam nga you know mais nag il faut ngay patché bañ a fàttale mais bañ a fàttali. Mm-hmm. donc il faut nga boole ñaari. mu nekk loo xamante ni ku ñëw seetaan. di nga gis spectacle. di nga dégg sabar démb di nga dégg sabaru tey di nga dégg sabar bu ñu improviser. sabar bu ñu ñëw ba ci seen bi improviser sabar. waaw loolu dina yéeme. waaw improviser. ñu gëm ko. parce que parce que sabar mën na lu ne. Mhm. sabar. Mhm. mën tëgg reggae. Mhm. mën tëgg jazz. mën tëgg afro. mën tëgg zouk. waaw yëpp sabar mën na ko def. Ah, waaw mais mais guddi googu à part euh, li nga ci nii euh, euh, dina nga indi sabaru démb hmm, indi indi indi tey improviser. Eh, yan tamit yan yan bir lañu mëna xaarat ci bir pour sénégalais yi nga xamanteni ñu ngi dégg nii des percussionnistes ñu mën ko wacc le 10 ñu mëna ñëw fekk ci la. Mhm. fofu ci théâtre dañé Sorano. waaw parce que xam nga comme <laughs> groupe bi dañuy taxaw di compter 1 2 3 4 ñu ne morceau bi la morceau bi la morceau bi la. Hmm. bo ñëwee percussionnistes dañuy compter ngay dégg morceau bi la morceau bi la. ñam nga da ñëw rek tegg yeen non non du doy du doon ci bu jël baram bay yoy de. Hmm. déedéet loolu mooy mujj dañuy ñëw ay morceau sabar lii reggae lii leneen lii leneen lii ah, leneen lii leneen ba mu mat ñaar fukki morceau ci kàttanu yàlla ñu doog a def leneen te te te te yëpp sabaru sabar yi nga xamante ni ñun sénégalais yi moom la mm. law bay yettu ci lay doon waaw ñun moom lay doon moom lay doon ñaata façon sabar moo a ah day moom boo koy calculer ndeer la mbang mbang tunguni cool làmb gorong babas après nag ci biir sabar yi am na bànd am na walkeer am na làmb non am na leer bal ay góor keer ak yooyu. il am ci sabar dafa am ci sabar donc nag boo parce que parce que mën bu tollee nii. Mhm. walkeer day toll nii mais ball day xaw a gund am leer ball am leer ci boppam. Hmm. yan musique yan ngeen ciy faral di gën a utiliser. bon Sénégal nag souvent mbalax mi moom ñu ngi utiliser mbëng ak cuul. Mhm. souvent parce que moo comme man. bon maa ngi jéem a créer ay mbir ci ci ci ci wan booy ni leen euh, sabar yëpp mën na jouer ci or ci musique mhm. parce que boo seetloo Ramadane ah, parce que man dooguma naa dama gis am na benn jour sama jumul seen euh, Berti Saloum hmm. gis naa nga yor benn sabar bu gudd waaw xamante ni man masuma ko gis daan ma ko gis ci musique ay ay tàndaweer laa ko daan gis wala ay ndëpp yooyu noonu ma gis nga nga nga joué ko man affaire bi xaw ma yéen waaw parce que xam nga bu njëkk dama daan joué jémbe ci sa ci sound waal yi mm-hmm. benn moment ma ne non naa changé mu indi ndeer après teg ci tunguni parce que man der ak tunguni laay joué foofu mm-hmm. pour wane ni tunguni gi nu xeeb nii ay harmonie mi ngi ci biir musique mm-hmm. waaw mais na nga ko jàng rek ba xam fi nga koy teg fan la mais mais mais mais galañ ji ni nga koy téye noonu parce que yi dañuy ñoom ni lay téye galañ mais yow galañ bi yow booy tëgg waaw mais xam moom day mottali rek nit moom mën nga jouer sax sans galañ galañ bi dafay mottali loxo rek lépp mi ngi fii mhm. waaw et puis fexe ba sa poids am façon rapidité boo xamante ni loo bëgg a def di nga ko def te doo sonn mhm. am na solo mais mais mais mais lan euh, euh, euh, la le le le nuit des percussionnistes tey que am na ñoo xamante ni ñu ngi la ciy gunge pare nañ pour gunge la ci accompagner parce que événement bu mel noonu boo koy def tamit dafay laaj ñoo ni war na dina la ci gunge. Mhm. parce que bon waree ba dinañ wax kiñ ko tuddee. Mhm. incha allah bu mbir mi gën a jege sax. Mhm. parce que chaque chaque at bee passé ñu ngi ko jagleeloon suñu wayjur yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ku ci mel ni El Hadji ma Cheikh Fatma Ndiaye. Doudou mhm. Ndiaye Coumba Rose. papa Weeseng Faye. ah sam papa Idrissa Ndiaye ñoom ñëpp dañ leen tuddee woon première édition bi. donc deuxième édition bi kon bii mooy deuxième édition bi. bii mooy deuxième bi donc dañ ko bii moom dañ ko bëgg a def loo xamante ni wax dëgg yàlla. non événement la quoi te bëgg nag Cheikh moom. li muy xeex mhm. mooy percussion am valeur mhm. ci réew mi mhm. ñu xam li ñu moom lan la loolu nag percussionniste yi nekk ci at ci Sénégal yëpp am nañ ci part ak ñu nekk bitim réew parce que ñu des percussionnistes laa wax mais ñu des percussionnistes est que mën nañ ci xaar ay chorégraphie ak ay danse mais lépp ngi ci biir ak liggéey bi fu mu toll pour waaw lépp ngi ci biir parce que xam nga doo woo doo woo ay nit ci ba ñu ñëw lu toll ni ñu des percussionnistes <laughs> nga woo leen ñu ñëw ñëw taxaw naan nii rek comme li ngay def ci mbedd mi amul chance quand même mm-hmm. donc dafay am na leneen loo xam ne ay surprise lay doon ci biir mm-hmm. dina ngi ci mm-hmm. dina am sax way dina am ne ngi ci cosaan ak lu ne ngi waaw kon euh, gars yi mu ngi noonu le 10 euh, novembre la rendez-vous foofu ci théâtre Daniel Sorano mm-hmm. mu doon événement boo xamante ni ñun sénégalais yi ñoo ko moom parce que suñu cosaan lay yóbbu mm-hmm. Sorano mm-hmm. Hmm, da ngay gis euh, doomu dëkku jàmbur ñëw fi ñun sénégalais yi ñooy de ñoo fay ñëw fay ñoo fay ñoo ëpp mais lii ñun ñoo ko moom te ki ko initié doomu Sénégal am na ñu ko fi mag fuuf Euh, masu ñoom idée bu mel noonu masuñu am xalaat bu mel noonu mais bu demee ba ne dafay créer li nga hmm. xamante ni moom mooy nii des percussionnistes fas kenn ci ànd ak ay rakkam que kenn ci ànd ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk métier bi ñu ñëw gunge ko kon hmm. euh, gars yi na ci ñëpp ñëw jàpp na ci ñëpp ñëw doolal ko ci rendez-vous boobu nga xamante ni moom mooy euh, nii des mais feex lan moo tax léegi musique bi musique dama gis ni të tëkkat sabar yu bëri ci musique léegi dañ ko bëgg def affaire famille boo nekk ci benn groupe indi sa rakk teg hmm, mu ñëw di tëgg sabar damay gis loolu ñu bëri di di di di di lu loolu. waaw mooy xam nga tey jii ah, loolu baax na sax parce que fekk say rakk ñoo bokkal nga teg leen ci place c'est bien beau mais boo koy def na nga fexe ba def ci ñoom xam-xam. Mm-hmm. surtout loolu gars yi loolu loolu ñuy méthode. waaw na nga fexe ba def ci ñoom xam parce que boo defee ci ñoom xam-xam dina tax après yow nga libre. Mm-hmm. gàcce du la ci fekk. Mm-hmm. te te te nañu gën a jàng. Mm-hmm. lu wees. Mm-hmm. nañu gën a jàng te te te wàññi wax ju bari. Mm-hmm. mais am na solo bu ba a baax mais mais Cheikh ñu ñëw ci ki nga xamante ni koo xamante ni euh, euh, euh, baayam dala ko dénk muy Bambaly Seck bàyyam dénk la ko euh, moom mu respecté la loolu nga doon kilifaam euh, tout récemment euh, ñu dégg li nga xamante ni rumeur bi nga xam moom mooy daw du rumeur sax parce que c'est officiel muy Subatel musique mu signé fa moom bambaali bi nga ko déggee nan naka la la dikkee ak rumeur bi wax ji fii te Bambali waru woon signé Subatel parce que Waly ak waa Subatel jubóowuñu xam nga sénégalais yi seen làmmiñ la ñu yor di wax te showbiz moom ku ci nekk da xool fa nga xamante ni moo la ah noo ko déggee. dem na Touba Denda yi ok hmm. waaw mais bon li la hmm. comme dafa dem pour liggéey kay. Hmm. <laughs> dem liggéey de. mais est-ce que mu doon sa doom. bàyyi waaw waaw mais qu'importe xam nga ak lu mën a xew rek. li may faral di wax. Bambaali ak Wally Seck ñoo bokk benn baay. ay faramaareen lañu. Mhm. Cheikh Anta Ndiaye mi Mama Ndiaye Penda joojooy maamam. mais mhm. vrai que baayam ma Penda Seck ànd naag moom fu ne. Mhm. te it dénk na ma ko. muy suma rak. d' accord yëpp waaye nag xam nga famille dafa sew. dafa doy waar te dañu nekk ci réew mu naqaree waxee. moom dem na suba teel. ok d' dafa dem pour liggéey. Mm-hmm. la dem liggéey. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. mais kon euh, ni nga ko waxee famille dafa xaw a doy waar du fu ne la ñuy waxee. Euh, dama ciy profité rek dugal ci benn question kon est-ce que dégg nga Keba keroog bi mu toogee ci benn média ni mu communiqué en tant que kilifa est-ce que noonu mu communiqué d'accord nga ci moom wala d'accordoo ci. ah Keba <coughs> ñoom ñëpp sekk lañ. parce que nee booy amuñu amuñu amuñu kilifa. moom <laughs> moom ok waaw moo wax loolu waaw ah moom loolu vidéo yi mu ne booy amuñu kilifa ya. parce que mënul comprendre bambaali taxaw tagg waali fekk mhm. suba moom mooy taxaw xalab waali fekk mu hmm. ne man gëj deg dégg waali fekk du ma dañ ko gëj papam bi mu gaañoo laa gëj a dégg kon hmm. am man manuma ci wax man manuma leen jox ay conseil parce que bu def duñu laaj hmm. waaw ya. ah waaw famille la de famille la d' accord euh, li li la waaw xam nga. Mhm. ak Waly ñoo bokk benn baay kee baag coon sekk yàlla ko yàlla yërëm ñoo bokk ndey ak baay donc mu nekk famille te euh, xëy na ñii di xew nii yëpp la ah. mhm. musique la de. Mhm. ah kenn xamul lu xew. dañ ko gisee ni ñu ko gisee rek. mais Kéba boo ko doon jox benn conseil ci ci ni mu communiquer. ban hmm. conseil nga koy jox. Kéba bu koy communiquer ah papa daal papa la tudd. Hmm. waaye papa daam lu ko war. jéen aja mu ngi noonu li ñu jëse ci waxtu bëriwul tey ñu daajaloon dalaloon ki nga xamante ni suñu émission Actu Star Cheikh Anta Ndiaye Cheikh Anta Ndiaye euh, percussionniste Cheikh Anta Ndiaye l'international Cheikh Anta Ndiaye doomu Sénégal di waajal événement bi nga xamante ni moom mooy ñuy dee percussionniste mhm. mais Cheikh euh, événement bi euh, kan nan nga koy waajale ak kan kan kan nga ciy oo pour mu ñëw jàppale la ci bés ñëpp rek li ci ki ma ciy njëkk a woo sax mooy Wally Ballago Seck mhm. parce mënu ma ko tëb mënu ma ko jéggi mhm. ci moom laa nekk mooy suma patron mhm. tu vois bëgg naa lu ma ne sax dina ci jàpp mhm. mais bii moom da cee rawati dama ko ciy gën a woo dama ko ciy gën a woo da ci woo di awdi parce que ku ne xam ne ni ni mu meloon ak sama papa du Ndiaye Rose waaw ku ne xam ne ni mel ak man donc loolu moom euh, wax dëgg yàlla bëgg naa ñoom. Mhm. ci kàttanu yàlla ak baaxam xam naa dañ doxante ci ñoom sax kenn ku ci nekk. Mhm. temps loolu loolu laa bëggoon wax. par ma voix équipe la Dakar waa. Hmm, euh, ma man maa jël décision boobu noonu. Hmm, te xam naa ne daaw dinañ ci taxaw hmm, le directeur programme suñu a Soya Diagne. Euh, ne événement bi ñu doon a yéene nañ ci gunge. dinañ la ci gunge ànd ceeg yow. Euh, ak ak ak Cheikh mii sa xarit. fépp foo xamante ni bëgg nga rek pour ñu gunge la ci. ñun dinañ ci jël. matuwaay yi war a ànd ak bi ñu ci war a àndal ñëw yow rabbi noonu lay ba fin incha loolu moom mooy géej am na loo xam nga nag ah, fii moom dafa am dafa am lu fi lu garaaw lu fi am te secret la mhm. a ah, ñaari Cheikh Anta bi daje wallaay wallaay <laughs> daa doy waar ba pare ba pare li ci gën a garaaw mooy Diop Ndiaye Diop Ndiaye Jal Diop Sangomar Dagaaru Jal Diop <laughs> Cheikh Anta Ndiaye benn Diop taxaw di la posé waaw xam nga lii dafa doy waar tamit lii il faut ñu lijjanti ko mais garaaw awde <laughs> ah, ak kan ak kan a awa di ak artiste boo xamante nii rek Cheikh Anta Moussa parce que man nag man liggéey naa ñëpp. Mhm. yi si sama ginnaaw mu jee jug ñëpp kenn ku ci nekk sama ñaq mos naa toq ci sa liggéey. Mhm. ñëpp ñëpp. Mhm. donc ñoo leen fay bor bi. jot nañu fay bor bi. <laughs> ñoom ñëpp ah ñoom ñëw fay bor bi. am na ah, Cheikh Anta woo nañ ko une heure woo nañ ko deux heures woo nañ ko trois heures woo nañ ko quatre heures. Mm-hmm. te mosuma gàntu nit. Mm-hmm. nañ ñëw fay bor bi rek. ci bés boobu nga leen ko laaj. <laughs> waaw ci bis joxe ñu àllarba joxe ñu dara waaye. nañ ñëw fay nañ ñëw fay bor bi rek waaw nañ ñëw fay bor bi kon oote bii mooy oote Cheikh Anta Cheikh Anta oo na artiste yi nga ah, xamante ni ñëpp liggéey na ak ñoom. <laughs> bàyyiwuma kenn amoo te Pape Moussa Sonko xam nga ni kenn du kenn du ko parce que moom bu ñëwee la muy tracé rek. Mm-hmm. xam naa ni dina doy waar lool waay wallaay wallaay gaa yi ñëw fay mbor bi tuuku <laughs> am ñoo xam nañ li may wax de dégg na la dégg na la ñëw bi <laughs> lan lan lan lan ngay tàggatoo Cheikh Anta euh, am nañu mbégte ah, xat na loolu ci yow parce que gars yi lay xaar ci studio bi ci suuf hmm. waaye euh, grâce à Cheikh ak euh, Khalil tax na nga accepté suñu invitation dalal ñu sa bërëbu liggéeykaay hmm. ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax baax lan hmm. ngay tàggatoo waaw li may tàggatoo daal mooy xanaa di ñaan jàmm ci rew mi di wax artistes yi dañu jéem a bokk ndey ak baay ñu wàññi xiiroo bi ak ñaayoo bi parce que parce que li ñu bokk ñun ñoo ko bokk mhm. te buñ ko rafetalul kenn duñu ko rafetalal mhm. te ñun li ñu moom te am ko mhm. askan wi noo ñu ko def ngir delloo askan bi njukkal faw ñu rafetal ñun suñu nekkin mettre leen ñoom ñu ne ci jàmm te ñu faral damay faral di ko wax sax nañu bàyyi xel ni mhm. xol mooy salaire doomu aadama mhm. xol mhm. boo liggéeye ba weer dee nga fayeeku moom fayeeku woo loolu sa ñàkk la rek waaye li ngay fayeeku dëgg sa xol la koy jox donc kon nañu nañu rafetal nañu rafetal kii yàlla jiital ñu xam ne yàlla jiital na ko topp na topp ka ca topp nag ca ndax nit ku nekk ni la suñu borom compal àlla ku leexal di nga ko kon donc nañ ko rafetal yaatale te yokk góor yàlla tegile <coughs> nu ma ko mën a waxee réel bi nañ ko yokk réel bu dëgg yokk réel bi parce que ñun dañuy war a respecté parce que dañuy taxaw àdduna dañu mhm, seetaan ñu wàññi yenn yi wàññi yenn jëfin yi mhm. wàññi yenn yenn clashante yi mhm. parce que yooyu bu njëkkoon la amoon ci rapport yi sax rapport yi sax clashante bàyyi nañ ko defatuñ ko ngay gis Papichou jaar fee Babacar jaar fee kii naan xaw ma kii naan xaw ma kii mais ko fi jar xam nga lii lépp day jeex am na ñu nu jiitu woon daan ko def nekkatuñu fi. Mhm. am na ñun ñoo fekkee tey jamono ji ba di ko def nañ ko rafetal bu ngir bu subaa. Mhm. suñu jëm mën a rafet. Mhm. yàlla yàlla def jàmm ci réew mi. jërëjëf euh, Cheikh Anta euh, am na ñu mbégte euh, dalal la suñu émission Actu Star ñu ngi lay ñaan suñu borom sàmm la. ba fi nga xamante ni bëgg nga fa yeggale musique Sénégal nga yeggale ko ak sa sago kontaan nañ bu baax a baax a baax Baye Fall dëgg la ñu dalal. Mm. góor yàlla dëgg dëgg la ñu dalal borom xol bu rafet dëgg la ñu Euh, maax moom bi ñuy njëkk a gisante rek euh, mhm. euh, weeru koor la woon waaw mhm. ah, weeru koor la woon ñu échangé lu bëree bëri mhm. tey bu ñu waatee fii ah, kon dañu koy ñaanal yàlla sàmm ko di ñaan tamit Cheikh Anta mi nga xamante ni tamit moom li yëpp mooma ah, mbokkum day xalil ñu ngi lay ñaanal bu baax ba seen ñaar seen liggéey bi nga xamante ni sumb ngeen ko suñu borom defal leen ko ndam xaral gërëm nañu ko benn jëm ñaari caméra di gërëm équipe technique bi ñu àndaloon di leen jox rendez-vous incha allahu rabbi très bi daan la <laughs> moo tax mu dégg